mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf Babacar ñu amati mbéttu contentement baax a baax ñu amati mbéttu ñëw jàkkaarloo ak Madji Madji 1 euh, ñu fas moom ci li nga xamante ne mooy boo xoolee le 22 keroog bëri nga lamb ju neex lamb ju métti sa diggante ak yow mooy masàllaa keroog ñu gis lamb ji keroog ak nu mu mel ak ni lamb ji déroulé Madji indi ci état de forme bu doy waar ci lamb jooju combat bi mu toll wala nga bëggoon combat bi ñu ngi lay nuyu Abou maa ngi lay fay di nuyu sa caméraman di nuyu lu làmb ñu seetaan ñëpp ñëpp ñoo xam ne ñu ngi bëggee màjj màjj waa diaspora bi waa Sénégal rawatina géejawaay gi ma juddoo yaroo fi màggee fi Medina Gunaas di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di sant yàlla di julli ci yonent bi di gërëm sumay ñaari waajur di ñaanal sama waajur wu góor fi mu nekk ca Pikine tëdd fa yàlla suñu borom xaree ko àjjana ak bépp waajur boo xam ne génn nga àdduna rek suñu borom xarelee àjjana sama waajur wu jigéen ma nekkal fii ci kër gi yàlla suñu boroom may ko fan wu gudd wér ak wérle bu lin mébét ci moom suñu borom mottalil ni ko ak képp koo xam ne am nga sa waajur rek mébét ci moom ci lu baax rek yàlla suñu borom may la fekke ak tal ak xéewali saan baaxan ba nga mën koo teral ak teral képp koo xam ne xaj na ci ci ci sa wërsëg waaw wax maa ji maa ji wax làmb ngay ndaanaanu bërekat làmb keroog la nga wane keroog ci làmb lan la waaw làmb keroog li ma ci wane loolu laa war a wane parce que sooy xool làmb ji ni ma ko bëree mooy ngar mi ak jàmbaar laa ko bëree ngar mi ak jàmbaar laa ko bëree ndax ki ma doon bëreel man maa ko mag moom nee na maa ko mag man maa ko mag tey man ma may ko sens obligé ko may ko sens bëri ay bis yoo xam ne bëriwu ko ñëw ci bis may ko sens ñi signature xas-xas loo mu ne ma duma ma bëreeg yow une minute une minute bi ma ko waxee mi nekkee benn signature mu ne ma une minute du ko bëreeg yow ñu xas-xas loo ma ne ko di nga bëree combat boobu mësta bëre ci sa carrière waaw booy xool signature bi maa ngi naan ko da ngaa yaakaar ne mburu mu gajaf ngay bëreel maa ngi koy wax loolu da yaakaar ne mburu gajaf ngay bëreel mais man man ma mburu mu gajaf man du ma ñeexu ba kenn di nga bëre combat bu gën a métti ci sa carrière mhm. boo gisee keroog le 22 loolu laa firme ak confirmé tamit mhm. ñi nga xam ne dañuy wax ne noo màjj mënatu ko dafa màgget wala noo mënatul daan kenn wala non làmb raw na ko waaw bis bi keroog looloo tax man ma wane ci loolu quoi. dëgg la mhm. semaine dama ñëw fekk la écrit waalo ngay contact ma xool say contact ma xool say ma ne màjj màjj mii. am na lu mu décidé ci làmb ji parce que ma mujj gi dem naa ba gis ñoom Alioune Seye gars ke mënutu la daan ci contact yi ma xam ne kii am na lu mu bëgg ci combat bi am nga loo décidé ci làmb ji wax naa ko Cheikh Niang boobu ñu ngi ñu ngi Kaolack man ko Cheikh Niang mu ne ko ma mu ne ak maaji maaji si combat bi mbaa mbaa foo wala ma ne ko ndaanaan ngeen di bëreel waaw yow foofu loo tax mu la koy gën a confirmer mooy Cheikh Niang bi ma ñibbisee bëre ba ci guddi gi mhm. maa ngi seetaan interview mhm. interview bi booy bi di dugg si si biir géew bi. benn journaliste di ko laaj. nan ko ah combat tey bi dina lii de mu ne mu ban combat mooy métti. waaw ji maa mii ma gis. yaram yaram bi di batar batari ni <laughs> kii ban entraînement la am Cheikh Niang mooy wax loolu naan kii ban entraînement la am kii booy bu duggee tee mu daan ko. ma xam ne ñii réere nañ mbir. waaw ndax ñi ngi jàpp ne ñoom. ki ñuy bëreel noonu mel mbër bu jeex la Cheikh Niang mu wax lii tey dina ko bu bu seetaanee li may wax dina xool ne xam ne man maa wax lii. ndax maa ko seetaan mu ne non kii booy bi dugg tee moo tax mu daan ko kii kii entraîné wul mm. Cheikh Niang wax loolu ñoom bi nuy waaj a bëre ñoom li ñu jàpp mooy booy bi bu duggee benn une minute dalay buub sànni la ne le léegi nag ñoom bu booy bi ñëwee làmb ji wow ci moom mm-hmm. waaw comme non daa wow ci moom pour dee ak sa bàmmeel mm-hmm. moom bu ñibbee sax dina xam ne làmb ji daa wow ci man parce que li ma foogee woon ci mbër mi bi ma ñëwee fekk ma fi lool. te man kenn du ma bi ñi indi Boy ñëpp indi bi ci làmb ji. ñëpp ko ëmb ñi indi Boy Niang ñëpp ko ëmb. dëgg la keroog bëri nañ bi ñu bëree dix minutes gis naa sunu papa Dégol dugg ci biir géew bi. gis naa sunu papa Burxaan dugg ci biir géew bi. grand xës dugg ci biir géew bi mooy course bi. grand lin. lin beneen course mhm. ñëw na wax mhm. muy quatre personnes yoo xam ne ñëw nañ ci biir géew bi mhm. topp ci nopp booy di wax mais est-ce que lu expérience face bi ko ëpp ci làmb keroog waaw ñoom lool lañ ko doon loolu lañ ko doon conseil parce que ñoom seen première xalaat mooy yaay xale kii da ngay ñëw jële ko fi mais bi nu demee dix minutes dem ñu xam ne kii dafa entraîné kii su suñu mbër mënul ñëw saax-saaxee kee jële ko fi ñu téyeloo ko boppam. dañ kaa téyeloo boppam macha allah ku xam ne xam ne mos a bëree nii. waaw moom man keroog maanaam bokk xale bu mun a song la saa bu song day jeexal action moom macha allah dafa mun a song. keroog nag maa ngi dégg Père Xës bi muy toog ci baa bi maa ngi bëre yëpp di dégg ci baa bi de mu naan ko dalay nax li muy def gëmu ko li mu lay nii yëpp gëmu ko dala bëgg a song si toogal say tànk. <laughs> maa ngi bëri di ko dégg mu ko wax lool naan say tànk li muy ndax gëm ko da lay song si waaw ñoom ñoom danoo sóor ñoom ñëw ba ba que lamb nag day sa bopp waaw tournée stratégie wan wan ko wan ne ko majji majji bul ko song da daan bëree di song léegi da ngay taxaw di ko xaar bu ko song kase abu mhm. lamb ji billaahi wallaahi wataalaahi jafe-jafe laa ko bëre hmm? barke yonent yàlla Muhammad waaw bari lu dal seen kaw jamono ji ay ci ay ah. jafe-jafe laa ko bëree ci lamb ji ay jafe-jafe yu bari laa ko bëreel yoo xam ne mënuma la wax lépp ci ay jafe-jafe ba ci biir làmb ji hmm? ay jafe-jafe fekk si nañu ci hmm? waaw première jafe-jafe bi ñuy génn fii nii rek am na ku nu baare fii ci kaw tëli bi werante bi coow benn borom scooter boo xam dañ doon traversé mu taxaw booyee xam nga rek fuggu làmb mayel mbër mu jàll noo du jàll werante boobu ñu werante ci mm. werante bàyyi ko mu jàll ñu def ñu ñëwaat stade deuxième jafe-jafe mm-hmm. mooy abu mm-hmm. yow ci làmb nga nekk ci làmb laa nekk mm-hmm. ba xam mës nga gis mbër moo xam ne moo njëkk a ñëw ci làmb teg ci mikaayam ñi ñëw ne yëkkati la sa ci mikaay waaw xam nga loolu gis nga ko keroog ci làmb ci loolu gis fi ñu installé ba toog fa nga teg sa cumukaay mais ñu ñëw gis waa CNG ànd ak forcé loolu di yëkkati pour nga jóge foofu pour dem beneen côté di ma yëkkati ñu na ba ci di laajte ma leen majji majji ak masala ku fi njëkk ñu ne majji moo fi njëkk ma leen kon ki mujjee ñëw la ñu war a bàyyi mu installé fa la jàmm na ñooy voilà léegi nag loolu nag laay def ay leeral nii parce que man masala njëkkee naa ko ci stade bi 30 minutes hmm. man njëkkee naa ko dugg si 30 minutes yoo xam ne man dugg si naa mhm. ba dem ci géew bi mhm. ba teg sama cimikaay ba jël samay biteel mhm. teg rangé la jël sama siège toog kon xam nga mbër mu def noonu moom ñëkk naa ñëw jël sama siège toog aisé wu nii jël samay biteel ba jot naa mise en wu ñaari yoon ba sotteeku ñaari biteel def naa mise en wu ba sotteeku ñaari biteel toog ma ñëw sama kotsu neen dafa julli ji woon bi ma ñëwee ma installé ba toog def ni Père Thioune ñëw ànd ak force de l'ordre bi ne ma da ngay jug fii nga toog ma ne ko ndax la mu ne non côté bële nga wara a dem ma ne ko lu tax may dem côté bële mu ne non côté bële nga war a dem ma ne ko déedéet xam nga lu tax waruma dem côté bële mu ne ko man ci laamu laa nekk xam naa règlement man sama ménagère déggante nañ démb ci guddi muy Matar Ndiaye mooy sama ménagère déggante nañ démb ci guddi waxuma suba a ngay dem wala bee Matar Ndiaye bi ñu déggantee mu ngi may dégg sama ménagère dana ma làmb ju ndaw amul tirage mu ne ma ju ndaw amul tirage amul a dem wala bee ku njëkk a ñëw fi nga toog foofu ngay toog Matar Ndiaye man mooy sama ménagère te man tamit sama test ménagère man moom laay topp mu ñëw tamit sama tegtal làmb tamit nekkaat foofu sama tegtal làmb nekk foofu muy ci mi kaay man foofu laa war a toog boot penku bi kon man man maa ngi samay logique maa njëkk a ñëw dë un mhm. de deux sama ménagère waxuma suba a ngay dem wala bee mu ñëw dugg si toog ba toog ma toog ma fekk père Bourkhane mu toog mhm. père Bourkhane mu toog teg ñaari barrière am ne day jàpp ci mikaay père Bourkhane <laughs> loolu làmb loolu làmb am amu ci làmb ci texte ménagère du jàpp ci mikaay te li ma lay wax nii man lu weer laa ko teg ma làmb nekkuma si nii di doxan di da damaa xam règlement yi làmb xam taxi ci làmbu taxi ménagère wul jàpp ci mikaay jàpp ci mikaay bu demee bay am entraîneur moo koy def te bu koy def daf fay teg ñetti biteel fekk mbëri di dugg seen doo mu jàppale mais temps de arrêt boo xam ne am na 30 minutes dugg si naa hmm. père xaan dem teg ne ci mikaayam père Thioune ñëw wax da ngeen fiy jóge wala force de l'ordre bi day day da leen yëkkati far force ñu dem man maa bañ barke yonent bi damaa bañ dama ne man duma ma jóg fii laay toog sama entraîneur moo tax ma jóg ak sumay mag yi ma daroon ay Alioune Seye 2 ay Maguette Seck ñooñu ñoo ñëw waxam nga ne ma barke yonent yàlla Muhammad tey fii foo teg sa cimikaay du la daan ndax teguñu ko ci gàllaay yow li nga liggéey lañ ko teg waaw day toll foofu ñu ne ma du ay gàllaaj mais yow linge nga liggéey loolu lan teg na yow tey boo tegoon boo ko tegoon seen kër yow du la daan munu laa daan te effectivement man tamit am naa sama gëm-gëm ne booy bi munu ma daan ndax daj naa ay coono yoo xam ne daju ko munu ma daan bu de contact ak physique yëg diin mhm. daj naa ko yoo xam ne ëppale wu ma ci ma xam ne mënu ma ko daaj mais lamb li nga doole dem aaj. waaw ma allah keroog làmb daa am taarix. làmb xam nga dafa am taarix. dafa am lu muy déroulé. am tegtal. même keroog ba Youssou Ndour euh, dafa teg cumukaay li. ñu yëkkati ko. dul ko ci biir. ci laa xoolee ma ne oh làmb yàqu na fi tey. bi mu daan. ko daan. moo ko daan. <laughs> te bëri ñàkk bis man yàlla suturaal na ma kenn daanu ma. waaw kenn tax ma jóg. Mhm. sama kursu dafa waat ci sëñ Babacar muy aaroo ne mu ne barki sëñ Babacar si mi ma yaakaar ñoom ñoo la bëgg a toroxal mais yow doo tey kenn du la doo doo du la yow yàlla du la toroxal man xam nga tamit nit la te am dama am kilifa man mënu ma sama kilifa wax ma may may wañanteeg may diyanteeg moom ma ne ko lan nga bëgg mu ne damaa bëgg ma ñaan la ci barki sëñ Babacar mhm. nga yëkkati ci mikaay bi nga teg na kii du la daan oh. man ma waqiiru loolu ci sëñ Babacar gi mu waat ma ne ko nan dem ma teg see ci mikaay foo ko bëggee bëri leen ko ci fulla fayda seen làmb neex gaaw loolu la wax bi ni ar ci loolu loolu lu si yoonam moom saga moom mooy yor mbiib di yàqamti ñun ñee jël ñetti weer avance ñun na la ñu war a waa waaw waaw bàyyi lu bëri toog sa soxna fu toog muñ ko ay weer ah dëkk ci entraînement di ñëw mooy loolu sa say famille duñ la gis gis bu yàgg. boo ñëwee suba yaa ngi matinalu ngoon nga dem entre contact. nekk ci trois mois waaj. ñoom ñiy toog ci benn douze heures de temps wala sept heures de temps bëgg a yàqamti ko. loolu laay wax ne du yoon ñun nan nu jox cër. ma ci arbitrage bi arbitrage dara baaxu ci. parce que def naa avertissement yoo xam ne avertissement yoo xam ne du yoon. parce que tey mënu ma man di bëre ñuy wër wër sama adversaire bi muy bëreel nangul taxaw benn place day dox su doxee dama koy dox topp ko su doxee ma topp ko ñu doon ba ci booru saaku yi dox ñëw mu mbiib ñëw def avertissement bëre woo la jox ma man avertissement bàyyi ko ma ne ko lan moo tax nga joxe avertissement mu ne non parce que bëre woo la da ngeen a dox ba ci booru saaku yi ma ko kon man nga koy jox man moom bàyyi ko mu ne doo ma wax lu may lu may lii ma ne ko non waroo ko jox avertissement man man nga bàyyi ko ci biir bëre bi nga déggaat ko mu naan bëre leen seen combat bi neexul seen combat bi neexul ay góor yàlla yuy dóorante ay arrêt def ay nii nga naan seen combat bi neexul bëre leen man làmb ji keroog bi ma bëree bi ma bëree une minute la am blessure bi xool. waaw ci loxo bi ma bëree une minute. da sama loxo bi an an am entorse. parce que mooy xeex que mooy xeex bi ma bi ma bi ma bi ma xeex ak moom. bi ci boor saaxe xeex bi ma xeex ak moom. mooy bi ñu korantee noonu ci boor saako yi ma kor ko nii dóor ko uppercut mu dal fii ci bopp bi ci ci li ma lay wax nii une minute combat bi bi ñu bëree ay une minute ci première jàppante bi ci laa gaaño ci laa gaañoo sama loxo bi mënatul jàpp mënatul dóor parce que man ñi ma xam ñëpp ñi ma xam man ñëpp ñu ngi doon wax majji majji lu tax pied droitam bi du ko bàyyi. waaw xam nga yow ci rapporteur sax di nga dégg ko naan waa majji pied droit lu tax mu téye nii. waaw boobu boobu sama loxo bi pare na boobu sama loxo bi am na am na en torse ma koy nëbb ci biir bëre bi léegi ci biir bëre bi ma koy nëbb ma bëree benn loxo benn arrêt de gauche laay bëree ak moom. te sama adversaire xamul loolu. <laughs> kon nga xam ne bëre ngarmi ak jàmbaar ñoo koy def ah, mu bëri xam nga ñaata minutes laa bëree ci ci loxo bu lii. 17 ah. minutes. barke yonent bi 17 minutes lañ bëri. ndax maak booy bëri nañ dix huit minutes. waaw bi des deux minutes. waaw mi temps nañ dix minutes bëriwaat huit minutes yoo man ci première minute bi une minute bi ci la ma gaañu kon ça veut dire que dix sept minutes moo ciy des man dix set minutes laa bëree benn loxo. billaahi wallaahi taala bi dis set sept minutes ma bëree ko benn loxo du ma jàpp du ma mën a dóor. waaw kon ku def loolu xam nga ne jàmbaar la. may bëree xale bu ndaw. Mhm. may ko sens. mu ne woon man yow mag nga dama ñëwee fee laale dal ni mu bare moom war na bëree noon xale bu ñëw ne mag du ma jàpp. Ah, waaw te moom war la fee jëlee mu ne mag du ma jàpp. moo tax mag mu téye sa bopp neex. mu ne mag du jàpp mais man samay làmb CMG ñoo ko yàq. li tax ñu yàq ko mooy man dama am kilifa man mosoo maa jégg may détaillé ci ay làmb ay niir na man tey nin ma def noonu beneen mbër bu ko defoon neeg naa làmb ji dafa yàqu. waaw est-ce ma la wax am kilifa am kilifa moo tax après sama kilifa ne ma bàyyil noonu ma bàyyi sama ménagère Mataan Ndiaye bi ma woowee lan la wax. Mhm. yow li la amul fenn yow yaa nekk ci dëgg ndax jour boobu moom Mataan Ndiaye fekk mu feebar. Mhm. waaye samp ay biteel moo tax mu woo ci guddi gi téléphone. mu ne ko Matar dana le mu ne ma tirage ko mu ne ma làmb bu mag la nii tirage vendredi. ci fi ci toogee ci tirage bi la manager bi di woo mbërëm ne ko A nga po wala B. mu ne mais lamb ji kenn tirage ko. promoteur bi mi ngi may dégg Ousseyn mhm. mi ngi may seetaan nii di ma déglu moom tamit wax na ma loolu nee na ma lamb ji kenn tirage ko. yow yow ba nga njëkkee ñëw yaay xool fu la neex toog léegi Père Thioune ànd ak force de l'ordre yi ne noo kon dafiy jóge ba mu yàgg mun mu waxtaan ak mu waxtaanaloon ne dem leen ñaan Burxaan. ba xam ni ngeen nangu moom mu toog nee ñu toog nee ñu jël barrière def ko seen diggante loolu xam nga mënta ne ñaari mbër mun noo bokk ci mi kaay làng nii di dem mun na indi xeex wala ay mu de mu def ay ay jafe-jafe man sama entraîneur bi ma ñëwee dana ma non man man waxuñu ma lii damaa damaa julli ji woon dama julli ki kii naan a wala b mais règlement làmb loolu amu si ku njëkk ñëw ci stade yaay xool fu la neex nga toogee en plus man samay nit bu làmb ji mi-temps Aliou Seye 2 su bëggee taxaw fee wax dañ koy puus. Maguette Seck su bëggee taxaw fule booy ñaar 2 Maguette Seck dañ koy puus kenn du fi ñëw man sama ànd na Boy ñaar Boy Niang mu mag. waaw ñëwoon na xool fi mu taxaw di seetaan làmb ji ci barrière yi. ci barrière yi la sëpp nii di wax. di wax nu demal nii arrêt de gauche déplacé wul Boy Niang mi ngi def lool te dañ ko bàyyi mu taxaw ci barrière yi kenn puusu ko. per dugal daa daa waaxu dugg ba ci biir géew bi. kenn waxu ko génnal te mi ngi jaaree ci buntu maam lees maam lees moo taxe port boobu foofu la jaar moo bàyyi Père de jaar foofu moo bàyyi Père Bourkhane jaar foofu dugg foofu ñoom di wax di wax booy bi bu bëreel nii ak bëreel na man suma langue boo fa xoolee sama sama kutsu rek moo fa nekk muy roon moom dong moo doon wax ak man man maay taxaw sax di jéelu gars yi naan ni ñu naan ma defal nii ak ay def ni mais ñoom dañ leen a bàyyi ñi aisé parce que làmb warul am kumba am ndey ak kumba amul ndey complexe warul am ci làmb te loolu keroog da see feeñ muy complexe non mbër mu mag ñëw na ay mbër yu mag dar nan ko nañ leen complexe keroog man loolu laa fa gis mbër mu mag mu ñëw na muy Boy Niang papaam ancien gloire la père Bourkhane ménagère la moo nekk président ménagère ñu complexe leen ñoom ñu def lu leen neex ñëw ci stade bi taxaw def nii di jàpp ay cimikaay ak ay yooyu man mi jiitu teg sama cimikaay ñu yëkkate man xam nga laa mujj loolu moo ko sax dëgëral man sama tegtalu làmb foofu la woon ma toog noonu hmm. boot suma penku. Ah, làmb day tegtal la day tegtal la. culture la làmb loolu duñ ko si dindi. culture la làmb da ngay dugg si des fois ñu ne la mbër mi bàyyil mu njëkk laa dugg. waaw su la njëkkee dugg fii ba suba bu ngeen bëree moom yow liy neex ci yow lay jóge loolu da am ci làmb sarm yooyu ak tektal yooyu buñ ko jéem a dindi di ko def yëfu nasaraan. parce que làmb affaire affaire aada la ak cosaan du ay affaire règlement wu football làmb amu ci loolu bi ñu ko ci dugalee la làmb yàqu. arbitre yi ñoom xamuñu làmb parce que lu tax xamuñu làmb ay texte lañ jàng mais nekkul luñ pratiqué. waaw duñ ay mbër yu pratiqué xam ne song mi dina jeex fii bu nu laalee kii fee lay jeexee. wala bu nu wëree kii ndomba dina jeex fii xamuñu loolu. ñaata yoon nga gis combat ñu ñu fii la mbër daw wër ko mu def trois appuis. rek ñu àtte ne quatre appuis la. dem xoolaat ne non. Ah, ah, voilà. booy ah, Diop gis nga daa àggale ba bëri bi jeex. mos ñu soog ko lii. mais te bu si kii trois appuis la def. léegi suñ ko àtte woon foofu action am boobu du ko ñàkk. nan bàyyi teel a sifflé yi ñuy teel a ak sëkkatal mbër yi ñuy sëkkatal mbër ci biir géew gaawal gaawal combat bi neexul yow yaa ngi gis combat nu mu tuddati sax caatu yoof. waaw caatu yaraax. Mhm. bi nu bi nu bi nu bi nu dalante ba kii di ko dàqi. arbitre bi kii da koo caatu yow da koo filfee rek fan la dale ji <laughs> daanu. kon ñi xam ku li muy ña li muy li muy saf ci stade gay nii keroog benn ñam la ci ñam noonu rek daanu na le ah. kon ñun ñuy dóorante ti ay coup ay ni kon xam na ñun li def metti na wala ay ni ndax dañ leen a ñamulul ay coup ñi def noonu yaakaar na nit ñi dañuy ñëw asaaloo seen combat ñëw fat-fat rek gaawal gaawal nit di bëre sax nga naan ko gaawal yow yow dañ laa jox règlement bàyyil ba mbër mi génn wala mbër mi ñu def ko nii mu wane ginnaaw dem yoonam nga ne mbër bi kat def ni ni mais di dox di dem géew ba dañ koo defar pour lool enceinte lañ def bu mag am nga droit di léewtoo di dox ba ba ci làngal jékki-jékki peese mbër nax ko nee nii mu yaakaar da ngay génn nga ne ko yormet song mais bëgg laaj tuuti xam naa ñu ñu ñu tëjee foofu parce que gis ngeen fan yi li nga xam bàyyi euh, na ko fii euh, kii Aziz mu indi coow lool ci làmb mooy empreinte lay créer mooy roi bi ki gën a mag ci làmb dañ koy fay salaire chaque dimanche dañu ñëw làmb bàkku si yooyu bàyyi def innovation bu am solo ci làmb lu ab lu baax lana nag lu ñu bëgg la mais Bira dafa taxaw ne li bàyyi def ànd na ci euh, li Aziz def ànd na ci d'accord na ci parce que euh, CNG am benn roi des arènes bu mu mos bu bu euh, wax jooju ñu ko jàngatee. non roi des arènes moom mënuñu ko jëlee ci làmb roi des arènes roi des arènes la parce que Mouhamed Ndao Tyson moom moo indi roi des arènes ci làmb ndax moo fekk manga daan ko ndax roi des arènes bu njëkk ba mànga danoo waxoon tournoi lay doon mànga bëre ba jël ko jamono yooyu ba jël bi mu ñëw nag ci la ko Tyson ñëw bëre daan waaw Tyson ñëw bëre daan mànga roi ko 97 ah jël roi des arènes ñëw daan ko bu ñëwee boobu ba léegi nag roi des arènes foofu la continuer ku daan roi kay roi ngay doon ku daan ruwaa ruwaa ngay doon Tyson nag moo tax ñit ñi ci jot ci ruwaa ñi naan jël na ko ñetti at ak jël na ko ñeent at à grâce Tyson te loolu mooy sarmu lamb def na ko ci kon tey nan bàyyi ki jël roi des arènes moom moom Modou Lo moom moo nekk roi ku daan Modou Lo yaay roi des arènes waaw ndax moom ci loolu la ko jotee ba toog ci nii kon nan ko bàyyi ak ruwaam su fekkee nag moom dafa nekk bëreetul wala ay def ni moom suñu ruwaa mënu ko yóbbaale day bëree ñu daan ko wala mu daan ruwaa bi nekk fi kon ne ruwaa leneen nag lu waaye di organiser nga organiser leneen façon organiser ko am nga ci droit mhm. mi ngi mel ne nga def sa kalaaf def sa lii kon bu la neexee nga teg sa beneen trophée ne lii laa ko tudde loolu yaa ko teg sa xaalis waaye titre ruwaa boobu loo la mudloo mooy ruwaa loolu moom kenn du ko bañ ba ilal baxalu ba ñu gis leneen waaw mais tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy lii dafa metti waaw dafa metti nga waaj komba ñëw indi sa état de forme bari xale yu ndaw waaw bëri bëri xale yu ndaw xale yoo xam ne danoo ñàkk jom man ñàkk jom laa ko tuddee ndax mënuma gis xale bu ndaw conservar da nga foo toll di jooytu komba di jooy combat bi jooy na si ba soon fu ne dem na jox leen na maaj ji maaj ji nii ak naa man ma yaakaar ne moom bu ñëwee day dëggal boppam ñi bëri ci deux minutes bëri yi sab-sab mu jeex mais nga ñëw di texel di bëri bëri tapet jaabante fii dem fi ñëw fii man dem naa ba sacrifice sama laam wàccee sama garde man boo gisee ma gaañu ni man damaa wàccee sama garde benn loxo sama droite mënu ma cee baare ndax moom yëngu na mënu ma cee baare bu ma defee nii bu si ku daleet day mel na courant bu ma maas oh. dama koy teggiwaat nii gis nga damay def nii benn laa di ko sëqatal nii muy arrière di dugal ay arrêt de gauche nii ak naa dem ma wàcc sama garde bëgg ibbil ko moom mu ñëw song bu ko wure. waaw ndax xam naa man suñu jàppantee ci bëre maa ko ëpp noxutu bëre dama koy daan man ci noxutu bëre maa ko ci ëpp moom nag ñi xam loolu ba paree ñi ko indi dan maa xam. Ah, dan maa xam pikin nga waree nag. voilà waree dan maa xam ñoom grand xës ak ay lii dan maa xam xam yi nekk ci moom moo tëj làmb jooju. mais moom lii moom lii victoire. ah, <laughs> ah waxal victoire bëreeg mag. bëreeg moom 18 minutes mu bëreeg yow handicapé benn loxo bëreeg yow 18 minutes moo tax gisoo bi ñu ko nee jox victoire bi bu daan daan day fecc daa leen daa miime miime waar rek dox xam na ne sax loolu du victoire ndax man daanu ma bu doon def maa daan ba ma tëdd déedéet daanu ma jàppante yi jàppante noo jàppante nii rek na mais daanu ma kon damay xam ne man man aw ma defet man victoire laa am de waaw aw ma defet victoire laa am bëre naa handicapé pour xam ne ñi doon seetaan ñëpp màjj màjj lu tax droitam jógul lii la. waaw mu ngi ni sama loxo bi mënut def nii taal nii rek lay def mënut def nii. nii rek lay def. waaw gisoo tey hôpital laa jógee. ñu doon ko rajo def passement yi. xool ko nii fiske ko. Mm. ñu doon ko pointé nii daal di koy mun mm. pour mu mën a def nii du def nii. lii laa bëreeg yow macha allah ci une minute laa bareek yow sama loxo dal sa bopp ma gaañu. Mm. ma gaañu ma zeere la ci benn loxo. Mm-hmm. ci benn loxo laa la géré ibil la nga dem ku na xam ne na xam ne man làmb kenn mosuma ci ay tuuse ay yooyu ku xam sax danaan la kat la nga nga koy lii kon boo mu tuusee lii la loxo buy metti mu bëre yow arrêt de gauche ibil la bëre pour nga bëre bëggoo bëre waaw ndam nag bu la neexee nga ne noo man ndam nu ma ko amee baax na bin la laajee laaj sa laaj sa sa père yi nga ànduloo yëpp danoo wax loolu non ndam noo ko amee baax na père Bourkhane na ma de non ndam noo ko amee mbër mu mag la suñu amee ci moom lii ndam ndam la waaye man lii du ndam man victoire laa koy lii di ra di di di rapport CNG lii ñu def sama cimikaay bi nu teg ñu tuxal ma def ko lii. moom liggéey ndey sax moo tax mu demee ni talba bi mu ko demee keroog Youssou Ndour da ko daan da loolu ku ko def ci laamu dañ lay daan teg cimikaay ñëw ñu def nii mais nag yàlla bëri na sutura. yàlla bëri na sutura di wax alhamdulilah rabi alamin alhamdulilah rabi alamin ba yàlla defal ma sutura ak tawféex ba ma bëree ko ci jàmm ak salaam te kenn tëraluma. ma ñëw ci jàmm di waxaat di def nii sant yàlla bu kenn ki ma àndaloon gaañuwul man na ma doon damay wax ci làmb man sax su ma naree ànd ak nit mu gaañu man na ma gaañu gaañu yëpp dal waaw man bëgguma di ànd ak nit muy loru ñu naan la ci bisu màjj la loroo wala nit man lu nar dal ci bis na ma man kase bàyyi ñi may àndal kenn bañ see gaañu di la sant di la gërëm waaw di gërëm képp koo xam ne mi ngi seetaan màjj màjj ah ak képp koo xam ne jàppoon na ci combat màjj màjj di mm. gërëm bay fay bu baax moom mi defar baas yi defar baas yi defar tiset yi mhm. tiset yi ma solaan sama turandoo maag maag maag maag papa mhm. moo ko defar may ma bàyyi fay di ko gërëm bu baax nekk ca marché bees di defar photo yeeg ay ak poster yi maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm Lamine si moom tamit yor na di gërëm Papa Ndiaye di gërëm Babacar mi may àndal di mhm. gërëm Bàcc Jang mi may àndal sonn nañ ci guddee ba di gërëm booy Jon Modou Thiam Ahmed Falaam gaa ah, gars yi yëpp di sonn ci man sonn ci combat lekk ñu am déception boo xam ne nii li arbitre di yàq làmb ji ñoom da leen a métti ci avertissement yi maa leen sant di leen gërëm di gërëm sumay jarbaat mhm. sumay doom ak samay dëkkandoo di leen masawu coono di leen wan ne maa ngi leen di jéggalu ci dérangement yeeg déplacement yi mhm. waa Touba maa ngi leen di gërëm waa Louga mhm. ah waa Cambérène ah waa Guédiawaye waa pikin waa benn baraak fépp boo xam ne man am naa fay mbokk rek maa leen di gërëm ñu may seetaan yëpp di leen sant di leen gërëm nanga ma ko tegal waaw nanga ma ko tegal nii ak naa Babacar jinne caméraman yi génneen ma lii ndax dafa ma naqari suma làmb dañ koo yàq ci ay teg ci mikaay doo fi teg da nga fi teg yaa fi njëkk dañ ko yàq ma bëgg nga génneel ma lii nag wasalaam loolu laa bëgg